hamdi wa sukuri liman kulli bihi saara lahu ridan bila siqatin مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى بار مكرمة من أتانا وفي عجام من صارا إن الذين إلى سرسار خرقصدوا siyaaratin faaraxu daarayni aw saara borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci bi doole santaat euh, Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké di ñaan yàlla suñu borom doole ay leeram taasuñ ci barkeem euh, daje bi bu ngeen ko gisee dafa bokk ci daje yi nga xam ne liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké rek moo doon ñor ci jataay bi ci jataay yooyu la bokk ba tax na dañuy leeral rek tuuti bu ñu paree Ibra Sarr dana agsi ci liggéey bi liggéey bi dañ ciy fàttali liggéeyu mbàccum Xelkom tombeek le 22 ñu war a dem liggéey xel xelkom bàcc gerte gi roñ gerte gi roñ ngooñ mi euh, def ko ci anam bu sell liggéey boobu Serigne Seex moom Serigne Saliou moo ko jox ndongoy tarbi yi mas a jaar ci Serigne Saliou yëpp ñu war a dem taxawu ci liggéey boobu liggéey boobu la fàttali képp kuy soppee képp kuy taalibe moom Serigne Saliou Mbacke ñëw la koy fàttali euh, fas yéene ko ànd ak euh, kuréel bii di Mawahibul Akyaas ci njiitul Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Modou Layit Baara euh, ñooy feeñal seen yéene ci liggéey bi euh, ba tax na Moustapha Mbacké Lo junior di ordinateur ak man mii di wax ak yéen ñu takkatoo àndandoo fas yéene jël liggéey bi def ko nam gën a selle euh, ak addiye joo xamante bi dañ ko daan faral di yóbbu di ko yóbbul sëriñ bi dañ koy boolewaale ak liggéey bi xam naa ginnaaw bu mbàcc mi àggee ca ëllëg sa te dañ fas yéene dajale addiye jooju jébbal ko sëriñ Cheikh moom Serigne Saliou Mbacke yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko ba yéene yi am ci liggéeyal Serigne Touba yëpp Serigne Saliou Mbacke mu àggale ko euh, ñuy fàttali rek euh, ne liggéey boobu ñu ngi ko ñu ngi ci ñu ngi ko defoon daaw muy bool yooyu ñu yóbbu woon ak euh, cin yeeg kudd yi ñu yóbbu loon ko Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu rafetlu ko ñaanal ñu ci tàmbali liggéey bi. Euh, ba tax na liggéey bu ba jógee foofu lañ tàmbali lañ ñaan yàlla ne fas yéene nañoo takkatoo doon benn groupe doon wenn say fas yéene yaatal liggéey bi moo waral woote tey bii ndax liggéey bu njëkk ba dañ koo defoon te yëg yaataluñ ko woon comme nii waaye comme liggéeyal Serigne Touba moo fi des euh, te moom lañ dese ñu fas yéene koo yaatal euh, ba àdduna bépp xam ne fas yéene nañoo takkatoo kuréel gii di Mawahibou Akyas ci comme ni ma ko waxee rek fas yéene dem xel kom toggal donga yi ci mbàcc mi taxawu leen comme nañ ko daan defee dajale liggéey boobu jébbalaat ko Serigne Seex moom Serigne Saliou Mbacke euh, euh, ci fuñ ko fu mu joxe ndigal rek na fa lañ koy fekk fa lañ koy fekk jébbal ko liggéey boobu ndax daaw dañoo dañ ko defar ba pare laaj ci ndigalam num ko bëggee mu jox ñu ndigal ne nañ ko fekk Poroxaan fa lañ ko ko jébbale woon ak kuréel gi euh, ren it fas yéene nañoo takk taxawu liggéey boobu. nu mu ko bëggee rek incha allahu rabbi ñu defee ko noonu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla ko fi yàlla yàggal saxal ko fi dëgëral ko. Euh, di njaanal njabootu Cheikhul Xaddim gépp ñu yàgg fi lool te wér. ak euh, taalibe yëpp noonu ko sëñ minikar euh, waxee rek euh, dañ ciy dellu si am yenn tomb yuñ ci yokk muy liggéeyu mbàccu xelkom bi Euh, di liggéey boo xam ne sëriñ bi moo ko jël jagleel ko ñi nga xamante ni ay dongay tarbiya lañ daaw bañ ko yëgee ñu demoon fa barkeelu toggoon ay xéewal yu yu am solo yóbbu woon ko ci daara yi yóbbu woon ko ci tool yi mm, ren ñu jàpp ne euh, dañ ko war a euh, dollan tollanti bañ demee togg xéewal yooyu dañoo jàppoon ne dañoo war a yóbbu liñ naan ay barkeelu lu mel ne li ay donga di soxla ay ndab lu mel ne ay basan ay satala ay sijaada ba ci mbana ba ci ay kaay kaamilu alxuraan àndoon na ci àddiyee jooju bi ñu àggee ci sëriñ bi jébbal ko ko mu rafetlu ko ñaanal ñu ci ñaan gu euh, goo xamante ni ñi jéggi na jéggi na dayo euh, looloo taxoon ñu ne woon renit noonu la ñuy takkoowaatee euh, fas yéene koo defee nañ ko defee woon ndax mbiru sëriñ bi moom day jëm ca kanam yàpp naa ne kon moo waral woote bi jàpp naa ne sëñ Ibra dina ñëw ci mbokki taalibe yi nga xamante ne nii daaw bi ñu ko yëgee euh, jëfoon nañ ci jëf ju am solo yenn mbokki taalibe yi ko yëgul woon it bëggoon koo yëg moo waral tey ñuy woote di ci woo mbokki taalibe yëpp. Xelkom ji ñoo ngi ciy woo Cheikh Mouhamadoul Bassir Mbacke mu sëriñ Abdou Khader mi joxe moo turu Mawaahibul Akyaasi euh, sëriñ saaliwu Mbacke mi nga xam ni mooy njiitul liggéey bi di Mawaahibul Akyaasi ñoo ngi ko ciy woo. ñoo ngi ciy woo Moustapha Cissé eh, di ci woo monsieur le maire Abdoul Ahad di ci woo Samuel Sarr mu Serigne Saliou di ci woo Cheikh Amar mu Serigne Saliou di ci woo Madické Niang mu Serigne di ci woo Elas Dia Bambay di ci woo Lamine Ba transfert di ci woo Sayer Ba moom it di kenn moom it ci ci liggéey bi di ci woo Abib Gaye moom it di kenn ci kuréel gi di ci woo Cheikh Diagne Gaynde marché Ocass di ci woo Pape Lay marché Ocass di ci woo Pam njaay Baye Ndiaye mi nga xam ni moo nekk alburax di rakk ci Abdou Aziz Ndiaye di ci woo Abdoul Ahad Ndiir moom it jàpp ci liggéey bi. waaye di ci woo Cheikh Mbacke Lo moom it ñoo ngi ko ciy woo di ci woo Abdou Diouf Lo Suisse di ci woo Khadim Lo Suisse di ci woo Boy Diop Italie waaye ñu ngi ciy woo soxnay jàmbaar yi. di ci jiital soxna Ndey Buso mu soxna May Galas sët Sëñ Fàllu waaye di ci woo soxna Musli Sàll moom it ñoo ngi ko ciy woo di ci woo soxna Momi Kebe mu Serigne Saliou di ci woo soxna Baali Jaxate moom it ñoo ko ci woo di ci woo soxna maam Faati mbàkki mu Serigne Sidi mu Serigne Abdoulaat ñoo ngi ko ciy woo di ci woo soxna Ndey Géey moom di kenn ci kuréel gi ñoo ngi ko ciy woo waaye ñoo ngi ciy woo soxna Daba Jaane waaye kuréel gi ñoo ngi ciy woo soxna Faama Njaay kuréel gi ñoo ngi ciy woo soxna Faama Loo kuréel gi ñoo ngi ciy woo soxna Joor saar bu ngeen déggee liggéey bi xam ne nag Xelcom moo jot liggéeyu Serigne Saliou mi nga xam ni moo ne woon jox leen ma ndaw ñi ma ma def ci ñoom la sëriñ tubaa daan def ci mag ñi kon kenn képp koo xam ni dégg nga ko te tuddoo ci tur xamal ni kuréel gi woona la waaye ñii bi nu tàmbalee liggéey bi dañ cee jëf-jëf joo xam ni yàlla rek moo tax ak sëriñ tubaa ak sëriñ saaliwu kon nag ñoo ngi ciy woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw la 21 ak la 23 bis bi nga xam ni moom la kuréel gi di togg ay doo ak xéewal yu bari di ko yóbbu foofu ci xel ko kom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bisimilahi tey ma door tey martial boromi leer ngir sunu ronko ñu dootul fer di lay jooy seexi saalihu bisimilahi tey ma door tey martial boromi leer ngir sunu ronko ñu dootul fer di la jooy yow seexi saalihu ba nga dëddee wane ginnaaw ba fi ne nii lépp a ngi laaw ñanaaw yi sax dootuñu naaw ànd ak cawarte saalihu mag ak ndaw góor ak jigéen. ñëpp a ngay jooy nit ak leneen ni moom moo di xayru saafihiin wam mën na róoyi saalihu ban ma fa génni ma jugal ma jug taxaw ñu ni ma xul duniyaa bi tàkk na yëgal ni buur bi jël na seexi saalihu ma ne na sax ni nuus mel ni kënu lan ma joos naa wayli wayli saalihu naan yaa wayli wayli wayla leen ma mbaa ko mooy ma dëddu leen sama xol bi fees na seer la leen ngir na mu mbër ma saalihu ronkoñ yëpp maa see rabbaloo di tuuru sax di jokkaloo nit ñëpp maa si yuuxaloo naa rab bi jël na seexi saalihu keroog dama jug di dox janeel jëmam jamel ni ndox moo taa sama kanama suux ci géej ji leeri seexi saalihu ngir xalaata ko na ak aku bëgg akuk cofeel moo dox jubal ni ak ngëneel mbër moo jëmmi seexi saalihu keroog ba ma yeggee damaa lagg suuf gis ñëpp maa see toog ci suuf ñi lay jooy ñi la seen cëri loof ngir jaaxle dem ak sëriñ saalihu ñi jàng alxuraan xaside xaside jolli ak leneen ñi lay sikkar ñi lay ñaan ci barki Cheikh Saalihu xutbu samaan bu nee dëgëj wane ginnaaw lépp nu kuuj naataa naataange saay bekkoor ne nuuj way jamono jooy na Cheikh Saalihu ana ka daa yërëmi ndaw yërëmaandeem nga sax di law ba daj ci kaw ak ci suuf jëlal raw nga Cheikh Saalihu amoo morom def naa la waaye def la yaay def la baay def la ngën gi wéeru waay doy nga ma la Cheikh Saalihu saxoo di taw guddeeg bëccëg taxul nawet bi lenn jag ñàkk gi la ba fépp daj ngir jooy demam nga Saalihu bur yàlla fay sa taal bi boy na dootut fay te njaboot gi yàlla na yàlla xëy wut fi jëmmi seexi saalihu taxawlu naa te julli naa xalaat nabi seydina wa alihi wa rabbuna li ahmadina saalihu jërëjëf sëriñ saalihu